ay fan a ngi nii askan senegal ñu ngi dekké ñaxtu diko waral du lenn lu dul yok yok ñu ko ci dundin wi bu si muju bokk na ci bilé bataxal di xamle ni njëgu carburant bi jóge na ci téeméer ak ñeent fukk ak juroom fukk jëm ci téeméer ak juroom ñeent fukk ak juroom ñeent muy lu bét ñu bëri. es gasal mom actuellement né ken buñ ko dé yokit ken yokkaku ko quoi mais essence bi la dégg ñu né eh, yok nañ ci 100 115 francs quoi. quoi loolu la loolu laa dégg quoi. ma ne woon rembale quoi gars yi ne dañ ko xaw a yokk ma ne waaw am problème parce que ñun si li li ñuy liggéey quoi lu mu yokk yokk il faut dañ ko jënd parce que mënuñu ñàkk a liggéey. mu toll nii képp moom lépp a yokk essence bi moom démb a yëg ni dañ ko yokk mais metti na quoi luñ ci mën a wax rek lu lu yanu rek mooy metti na quoi xamuñu nag qu'est-ce qui se xamuñu lu xew nag. yàlla xam ne ne man musuma laaj gasoil lan lay jar barki démb laa doog xam gasoil li muy jar may may rempalé rek waaw foo ma fekk ci essence may rempalé ba mu fees fay dem sama yoon. bërki démb laa doog a xam gasoil mi ngi jar 9000 bu manqué xaw ma 9000 bu teg bërki démb laa ko doog xam ndax plein bi may jël. yokk-yokk bi ñu nemmeeku ci carburant bi nag dawalkat yi ñu ngay métitlu bu baax ndaxte pour ñoom lii de du leen indi dara lu dul ay jafe-jafe. waaw di niil jafe-jafe kay parce que nit moom bu dee da ngay liggéey ci li ngay am lépp mu yem ci carburant kay kooku il faut ñu ay jafe-jafe. bañaa dina indi jafe-jafe kay forcément mënul ñàkk même essence bi ñu yokk nii dina indi jafe-jafe parce que boo seetee daanaka lépp luy dox si réew mi si si lool lool si loolu lay dox quoi si transport lay dox bu yokkee forcément lépp day yokku waaw loolu moom bu bu ñu yeboo xaar ko quoi xam naa ne bu yokkoo moom incha allah lépp lépp dina yokku gasoil doon na manqué lu bëri da ngay ñëw balaa nga am gasoil moo loolu da ngay sonn da ngay ran après fan yii daa daa daa lu bëri daal hmm. mais manqué bi dañ ñun arrangé borom oto xam nga chauffeur moom bu carburant manqué du ko arrangé même bu yokkoo it ñàkk a rek mais mënu ñaka a ñi ñile ñu ngi ñaax nguur gi mu bayi len xel bu baax tay gëna a woyofal loxom ci seen bir fi mu ne daal li nga xam mom lañ soxla bu ñu ko Macky Sall mënee dimbalé nañu ci dimbalé wañu ñuko ko. ñu ci mëna a wax daal loolu nguur gi dal bu ci mënee jàpp woyofal affaire yi parce que affaire dafa mer essence rek essence bi ngay jënd ni pour dawla li jënd say li say soxla su fekkee dafa seer tamit nga dem li jënd li ngay li jënd nga jëndee ko essence tamit neexul quoi. waaw nguur gi de mu gëñee xool nu mu gën a oyofee si ñun rek nu mu ñu gën a jàppale rek waaw parce que moom il faut mu am carburant bu mën a demee affaire yooyu noonu. Hmm. mais nag bu ñu mënee wàññi carburant bi daal moo gën quoi. ñoom chauffeur yi nag ñu ngi ñaawlu bu baax lile ndaxte gisuñu dara lu war a mën a tax ñu yokk njëgu carburant bi.